nu khadim rasulillah ak weeru ya koor di ci dalal ay boroomi xam-xam di ci dalal sëñ khadim juuf mu sëñ saaliw sow mu tamlé ci premier episode, ba ba dernier episode ba di def ay plateau yu am solo ñu ñaan ngeen abonné ci sen asahada tv gi sen asahada tv mo leen di tàmlil ca premier episode ba ba ca dernier episode ba am na ay plateau yu neex neex dana dalal boroomi xam-xam yu xam yoon wi di xam ramadanit ñu leen di ñaan ngeen abonné yeen ñep